na sapeur pompier yi nekk Touba tey ji nag doon nañu amal mayam deret ci teewaayu waa la bul Matlaboul ni rawatina bangaas bi jëm ci wàllum deret ak la koy saytu ñoom nag amal nañ jëf ju am solo jile li lépp nag ñu ngi koy def ci waajtaayu bis bi nga xam ne ni Sénégal moom la jagleel soldaar yi di sapeur yi liet na Adama Diouf gën naa ñëw ci solo jëf jile comme ni nga ko waxee tey dañ fi organiser journée bu ñuy jagleel maye deret journée don Euh, lépp nag di waajal journée bi nga xam ne dañ ko jagleel waa sapeur pompier yu Sénégal waa di rappeler ne nag euh, journée bi euh, suñuy kilifa ñoo ko ñoo jël initiative bi léegi digal ñu à ce que ñu organiser ko ku ne ci secteur bi nga nekk ñoom nag li ñu ci jublu mooy jàppale ñi nga xam ne ñooy hôpitaux yi ba ñi accidenté sur la circulation te plus souvent ñuy ñàkk deret yu bëri heure bu ñu demee hôpital ñu mën leen jox deret ci ni mu gën a gaawee mais li si tegu leneen ñi mooy képp koo xam ne tamit feebar nga dem hôpital euh, soxla deret pour mën a dund ñu mën la ko jox ci ni mu gën a gaawee. woote gu am solo gii nag di mayem deret gannaaw bi ko sapeur pompier lancé ànd nañ ci ak seen i naataango ñu ci mel ni waa gendarmerie waaye ñii di askan wi di civil yi ñoom itam kenn demul ñu des wuyu si gii nag doon da mbégte bu baax a baax ci ñoom ñi nga xam ne ni ñoo doon organiser bisub don de sang bi effectivement lu mel nii bu ñu koy organiser ci secteur dañuy informer ñëpp suñuy collaborateur euh, en particulier les forces de défense et de sécurité mais également population environnante bi nga xam ne ñoo wër camp bi ñoom tamit ñëw nañ wuyu ci ci bés bi fi may wax ak yow nii tey euh, collecté nañ lu yemook juróom-benn fukk poche ak juróom te tamit opération de collecte ñu ngi continuer jeexagul. mayam deret nag nekk jëf joo xam ne nii am na solo lool. waaye li ëpp ci askan wi ñàkk koo xam tax nañu ragal ko wala boog ñu sàggane ko loolu tax na nag lieutenant Diouf ci ay kàddoom fàttewul benn yoon wax lan mooy solo si soññ askan wi ngir ñuy maye deret ba mën a dimbali seen yeneen moroomi doomu aadama rawatina buñ tolloo ci tolof tolof soxla deret. effectivement comme ni nga ko waxee ñam na ñoo xam ne dañ xaw a ragal maye deret mais ñëpp di leen lancer un appel ñu xam ne euh, non seulement deret bi ñuy maye ñu ngi sauver ay vies parce que ñeneen ñoo koy soxla ñoo xam ne dañuy. peut-être bu ñu ko amutoon mën nañ mën nañ see jëlee lor boo xam ne kenn du xam ni muy ni muy toll li leen li si tegu mooy dafa baax si ñoom en tant que parce que da leen dimbale non seulement ñu xam seen groupe sanguin groupe sanguin moo lay jàppale suba boo nekkee tamit ci yenn tolof tolof yi soxla deret euh, day gën a gaawal liggéeyu liggéeyu médecin yi euh, tamit di leen wax ne mën na leen dimbale ñoom ñu mën a xam feebar yi ñor pour mën ko jël teel a jël en charge. jëf ju am solo ji nag sapeur pompier saa su nekk ñu koy ànd ak waa hôpital Matlaboul Fawzeyni ci teewaayu madame Ndiaye jiite lépp lu jëm ci banque de sang foofee ca Matlaboul Fawzayni gën naa ñëwaat ci diggante bu boobu nga xam ne nii nemmeeku nañ ko diggante sapeur yi ak woykër docteur waaye fàttewul benn yoon itam soñu doomu aadama yi ñu gën a maye deret ngir jàppale ñi nga xam ne nii ñoo di askan wi. donc sapeur yi moom tàmm nañ collaboration mais ñoom seen devise moo ko laaj dañu ne sauver ou périr dara gënut a noble don de ci waaw parce que ki nga xamante ni mi ngi tëdd mënutoo may boppam nga jël asaka ci sa yée sa deret asaka nga koy may waaw daal di koy may mu sauvé kon ñoom seen devise la ñuy respecté à travers tout le territoire depuis 2014 lañ ko commencé woon un sapeur une poche de sang te boobu ba léegi chaque année ñu ngi koy def kon nag du sapeur rek police même chose di remercier waaw gendarmerie ñoom tam dañuy maye di remercier surtout nag école yi vraiment école yi ñoom ñun amuñu seen fay xëy na nag li ñu ko jàngatax mais ñun lycée bu fa demee ñun ñooy jël ba daw ay 130 cinquante dañ fay jëlee am na tamit ay association de jeunes yoo xam ne dañuy may à travers les quartiers. may deret moom ku nekk xam na ko c'est-à-dire y a des gens réfractaires comme ça yéen ça vous êtes réfractaire boo mayee deret yow non seulement di nga ci xam sa wér gu yaram fu mu toll waxuñu sax côté jaamu yàlla bi ndax Serigne Saliou sama sang ba yàlla nañ ko yàlla fayal nee na xeetu jaamu yàlla yëpp maye deret moo ci gën a kawe ndax ah, nee na ki mayees deret jox ko nit mu sowe du askan si moom yaa leen fi indi da ngaa jiyaat defe naa lool rek war na war tax na képp ku ko wax ndax sëñ Saliou ay waxam kenn du ko kenn ko sos moom wax rek lañuy ñuy répété war naa mën a tax sax nit ñi di ko def mais dafa kii ku nekk nag ak ni ngay gisee ndax da gis kenn ku sew ñoo ne damaa sew de mënumaa may deret te fekk na du loolu parce que deret ñun ñëpp ñoo ci yem ku nekk boo xasee ba nekk adulte am nga 6 virgule cinq litres cent buy circuler yow li ngay maye 0 3 350 millilitres la maanaam matul sax genn wàllu litre waaw nga gis kenn koo xam ne day ñëw am yaram ñu xool ko ne ko yow mënoo maye kon maye deret aajuwul ci am yaram wala aajuwul ci kii volonté doomu aadama la ak esprit de solidarité parce que nee nañu la doon de sang c'est un acte d'une haute portée civique bénévole et volontaire kenn du ci forcer kenn. gannaaw njàmbaar gi nga xam ne ni saa su nekk sapeur pompier ñu ngi koy wone ci nag secourir nit ñi ci jamonoy tolof-tolof lu ci mel ni accident wala lakk wala yeneen jéey yu demee noonu seeni jëf nag yemul ci loolu kese. mayem deret mi nga xam ne ni nag doon nañ ko amal tey jii ci camp sapeur pompier bi nekk Touba day firndeel di wone ak dëggal seenu bàkk wi ñu leen di màndargaal muy sove ou périr saa su nekk seen yitte leen rek la taxawu askan wi bam jaral leen tayle seen ak dund